ku nekk bu la gox wooloo ba dénk la li la war mooy nga assurer leen li ñuy woowee la gouvernance des services sociaux de base maanaam dëkk bi am sécurité dëkk bi am jàmm nit yi mën a dund éducation bi ñi ko war a accéder accéder ci ñi ndëkk ci gox bi war a mën a am liggéey am ko ñi nga xam ne bëgg nañ daw ci tali bu baax nga dimbale leen ci am jumtuwaay yi nga mën a xam ne dina mën tax gox boobu am solo mais gis nañ ne bon que suñu commune bi nga xam ne fa nañu yeewoo amul loolu yëpp nekk des choses yoo xam ne c'est visible du man maa ko wax amul benn tali boo xam ne am na assainissement tey dañu naan banlieue bi mais tey boo mel ne tey lu mel ni bundu kër Serigne Ousseynou Thiaw Laye ak li mu représenté ci patrimoine Layène ni mu mel boo demee ci ci ci ci ci yeneen dëkk yu gën a reculé dans dans dans le village de Yoff da ngay gis loolu boo ñëwee fii Ouest Foire notamment dans la dans la route bi nga xam ne tey moom jëm sur la rue bi nga xam ne moom jëm ci euh, fédération sénégalaise de football bi on voit la même chose et tam ci seen nouvelles yëpp ba jàmmalaay ci biir loolu nga ñu gis donc dafa nekk loo xam ne nekkul man maa ko wax c'est des réalités la Abdoulaye Diouf le ministre de la santé en même temps maire maire qu'on ne voit jamais maire boo xam ne du participer ci au développement de sa commune ko xamné do gis ko am dëj bu mu dem jaale ko gis do am ngenté bu mu dem topato ko gis do xamné da nga koy gis ni amul ben étudiant bo xamné ne mi ngi ci commune bi mi ngi koy jappalé muy jang gis ne ay diplôme yi fi nek te mu len jox ñu liggéey kon japp naa ki la fay à sa mission. d'une manière générale moy dafa am len lo xamné nekul nekkul équité nekkul égalité égalité moo amoon par rapport à la à la à la commune de muy ben parce que dafa am ño xamné ne daf len jël ber leen di len jox alalu alalu gox bi budget gox bi ñukoy koy déroulé bàyyi ñeneen te ñeneen ni c'est l'argent des contribuables xaalis bi ñu jël tay di ko jox budget mairie dafa nekk loo xam ne nii waajur yi koy liggéey ba son ñun ñi suñu bop ak ñeneen ñan ñoo koy liggéey kon suñ ko joxé ni dégg ko li war ci mom moy mu teg ko ci yoon sonu nañ ci benn deuxièmement moy même daara yi nga xamni ñu ko doon joxé rek ko distribué amul kër man buma gis dans les cités nouvelles gisuma ben kër bu ñu dugg jox jox leen gisuma ko man benn deuxièmement pour sur le plan de la sécurité légui yof mu melni mel mu mel ni sabar bu tass amul aide par rapport loolu kenn du une sensibilisation tay mën nañu même jeunesse bi bu tourner dem côté grâce à euh, ci à cause de lui c'est à cause de lui parce que moom ci boppam war na di wax ak jeunesse bi conscientiser leen pour ñu euh, problème